waroon ci ndax li tax ñu ci d'accord mooy but bi mooy protéger cër mais réglement 14 dafa am préalable réglement 14 dafa wax tey fépp foo xam ne lu mat deux cent mille tonnes da dafa génn ci marchandise mm. dañ leen a war a équiper ay pèse essieu bu leen équiper pèse essieu ñu mën a saytu ba camion ya fay jaar ñuy xool seeni poids d'accord conteneur yi nga tudd dafa am particularité particularité bi mooy conteneur booy xool dafa am lu ñuy wax payload payload mooy li ñu bind ci bunt bi nii conteneur bi mën na def nangame tonne supposons mën na def vingt tonnes. Mhm. conteneur yi ñu ngi leen di chargé Europe Chine ñuy ñëw bu ñu chargé conteneur bi ci biir def ci vingt tonnes yëkkati ko teg ci camion mu daw ci Europe wala Chine ba ca gaal ga mu jël ko indi ko ba fii li ci des boobu moo ñu yóbbu ko. li ni bëgg a gëmloo jox ko responsabilité transporteur yi mooy vingt tonnes yooyu nekk ci biir euh, conteneur bi bu ma la koy xayma da naan la juróomi na nekk ci roue bi nekk ci càmmooñ beneen juróomi tonne bi na ci ndeyjoor ñu ci kanam ak ci ginnaaw noonu lañu bëgg mu répartiroo ba buy daw ci tëli bi bu euh, équilibré loolu ku fekkewul fa nu yebee conteneur xamoo fu conteneur jóge mais xam nga ni respecté na payload bi nee na 20 tonnes moo ci war a def nee ah, def na ko oto bi nga yore aussi carte grise bi wax dañ ci poids bi mu autorisé mu mën a chargé bu ñaari condition yooyu remplir kon gisatu nu ñun naka la war a amee responsabilité ci loolu li ñuy am responsabilité mooy bu fekkoon dañuy jël ay tonnage boo xam ni oto bi àttanu ko wala conteneur bi ñu teg ko ci oto boo xam ni attanu ko te kooku kooku ka ca teg mooy manutentionnaire ba daf cay am responsabilité ndax règlement 14 bi ñëwul ci transporteur yëpp dafa ñëw bu tegee ci njëlbeen nga ma wax la plateforme mm-hmm. mooy ñiy teg marchandise bi ci kaw oto yi danoo war a saytu ba xam oto bi ñu koy teg liñ ciy teg attan na ko. waaw loolu noonu euh, nekk loo xam ne euh, benn fànn la mais tey. Mhm. Euh, lu waral ca port. lu mel noonu ñu ne dañ koy appliquer. Mhm. yéen ngeen xëy tey daan ne nañ koy defee. waaw ak li nga xamante ne moom ngeen doon xaar. Mhm. ndax mën nga expliquer nit yi xam lan la dangeen def surcharge. à l'essieu wala da ngeen jàpp ni yéen a ngi doxal yoon waaye dañ leen di surtaxé au ñu xam. fan la problème bi ne tey ci biir port conteneur ki nga xam ni moom moo koy saytu ki ñuy jox conteneur yi ki ñu koy livrer dafa nekk benn euh, tey ji euh, béréb bu ñuy wax DP World hmm. moo yore quatre pour cent conteneur yi génn dakaar terminal mooy génne lu mat dix pour cent dafa war a am ñeenti pèse essieu bindoon sax ministère des transport terrestres ni ko ñu may leen ba ñu équipé wu fii fin mars. bu 2020 bu 2020 ñu équipé wu fii ak fin ministère tontu bo tontu boo xam ne bu défavorable défavorable ñu xëy suba le premier janvier ñu ni ñëpp lañ koy appliquer. Hmm. ci loolu trafic bi nga xam ni mooy jaar ci Dippiwot par jour mille cent à mille deux cent camions la. par jour boo xaymaa pèse essieu camion bu yéeg bu yéeg bu ne dana def au moins cinq minutes tey jii bu nu jógee di jëli conteneur dafa am leneen lu ci nekk dafa am li ñuy wax benn parkingu port bu nekk ci biti ñu koy wax AGS ñu am obligation jaar ci parking bi ba pare dugg ci poor bi jóge ci parking bi ba ba ñuy dugg ci biir port bi port bi dafa am ay infrastructure yu dafa am ay travaux yu ñu fay def ay voir yi bu ñuy fa duggee ba ba ñuy egg ca dippi fa ñuy jëlee conteneur bi danañ def lu mat fukki waxtu. ci diggante boobu ci diggante boobu. sur une distance de combien. ci une distance de deux kilomètres. ah wala maximum trois kilomètres ñu def ko ci. di def premier deuxième premier deuxième mu yàq suñu démarreur di yàq suñu matériel fii ñu tollu ban daan dugg ci poor bi vingt litres gasoil lan daan def ci oto yi tey ñi ngi def quarante litres pour def benn opération mm-hmm. bu ñëwee dippi wët bala noo dugg ba egg mu tegal nu ñu ñëw muy peese peese ba feneen la da nga koy rang ak li port bi xatti noonu ñëpp oto yi def tancaloo ba ba ñuy egg ba muy peese ba ba ñuy génn ba muy egg ca douane ba muy euh, génn mu def lu bon bon yeneen juróom-ñetti waxtu wala juróom-ñeent mooy xayma jóge ci terminalu AGS ba ba ngay dem di pilote ba ba ngay génn mu nekk fukki waxtu ak juróom-ñett ak juróom-ñeent yooyu yëpp chauffeurs yi ñu ngi ci biir oto yi te pour de problème de sécurité chauffeur du wàcc ci suuf bu nu bëggee def seen besoin sax yooyu moom du ma ci egg euh, yu jafe la ñoom ñoo jëkk révolté wu ni dootu mën di dawal ci condition ndax mënul nit mënul liggéey 18 heures sur 24 heures. c'est vrai. Ah. waaw parce que euh, maa nga wax ko léegi euh, par rapport ak condition de travail nga xamante ni moom moom ngeen di dund. ba pare gis ni que peut-être état bi dafa ñëw am li nga xamante que ñëw surtaxé leen ko yéen surtaxe boobu est-ce euh, une question bi nga xamante ni assiette fiscale bi parce que loolu keroog ki nga xam ne moom la ñu jotoon invité fii voilà mm-hmm. donc moom mi nga xam moom moo doon wax ak commerçant yi aussi dafa fustiger loolu nee très souvent gars concertation da ngeen di xëy bés rek mu daal dal seen kaw. bala maa egg ci boobu danaa ci yokk ni euh, tey taxaw bi du taxawu rek conteneur lépp luy transporteur boo xam ni day jël marchandise ci biir port bi. ñi nga xam ni dañuy ñi ngi ci benn yi ñi nga xam ni ñi ngi ci vrac yi ñoo ñëpp a bokk taxaw ndax dañoo am bloqué ngeen activité port. loolu mën nañu wax ni activité port bloqué na effectivement parce que lépp luy transporteur ba ci hydrocarbures yi danañu rejoindre ca Maliens yi géej ngeen ne ni commencé nañu dem. donc rek du conteneur conteneur rek conventionnel lépp luy marchandise buy génn ci port bi ci deuxième mooy mooy premier point bi mooy indi suñu suñu revendication mm-hmm. beneen deuxième point bi mooy loolu nga wax euh, euh, mooy tey jii facturation bi nga xam ni dañ koo teg ci kaw transporteurs yi ca direction du port di ko appliquer à partir du 26 bu ma la mën a xayma mooy gis nga pour nga dugg nekk ci entreprise boo xam ni agréé nañ la pour nga mën a transporter ay conteneurs gën gaa néew dañ lay wax da ngay am juróomi camion da nga embauché juróomi chauffeur da nga am ay garage da am am loolu lépp donc yéen ngay créer emploi ci loolu ko mooy ki gën a néew juróom ndax am na ñu am fukk téeméer ba ci téeméeri oto am na ñu ko ci am ci ci biir ci loolu ñu ñu daan fay borom cinq oto yooyu daan fay cinquante mille par oto par an pour di accéder ci port bi muy deux cent cinquante ñu yeewu tey direction du port jox nu bataaxal seen not numéro 32 du 18 janvier ni nu léegi oto bi pour mu dugg ci biir port bi day jaar ci sama parking bi ma créé muy AGS bu fa jaaree ngeen ñëw fay ma 6600 ci oto bi ci accès bi pour dugg dem jëli conteneur plein bi boo jëlee conteneur plein bi génn ak moom ba jox ko commercant bi ba mu génne marchandise am bi da nga koy delloo ci biir port bi ñu ni nga jaaraat doo duggaat ci AGS ndax ages boobu mu nee nañu mooy passage physique bi passage bi liñ ko tuddee virtuel ngay def nga jaaraat pour yóbbu conteneur vide bi ñëwaat fay ko 6600. boo leen boolee euh, entrée ak sortie waaw yóbbu plein. jëli plein da ngay fay booy delloo vide da ngay fay bu ci ne 6600. muy 13000 muy 13200. kon kooku nga xam ni am na. juróomi par jour par accès. par accès ndax oto bi. saa yoo defee opération bu ko defee opération. waaw ah, man autant d' opération autant de passage. suñ ko doon comptabiliser si at benn oto bi ci boppam bu fekkoon ni benn conteneur lay jël par jour. buñ ko comptabiliser ci at bi fa mu doon fayee cinquante mille francs dana fa fay quatre millions huit cent. boo fabee treize mille deux cent francs nga multiplier ko par trois cent soixante cinq jours ndax port day liggéey chaque jour guddi ak bëccëg amul benn bis bu dul liggéey. Mm. donc ki am juróomi oto boo ko dajalee ci at mi transporteur bi dana fay port lu toll ci à peu près vingt cinq millions fu mu ko doon fayee deux cent cinquante mille. ci mm-hmm. it danaa leen ci tegal entreprise yi ngeen xam ne tey dañuy liggéey ci transport. amul benn mën nañ ko contrôler au niveau des impôts boo xam ne boo xooloon bilan fin d'année dana am bénéfice su million millions pour lekk déjà 25 millions ya hmm. loolu boobu façon liggéey ban façon liggéey la loolu bokk na tey ci li tax ñu ni dañuy taxaw wax ak ñoom ñu loolu ñu teggi ko wax puisque ñaari ministère a ko séq point bu jëkk bi ministère des transport la mooy le ministre beneen bi ministère yu euh, euh, maritime ak pêche la mhm. ah, muy Aliou Ndoye donc ñu taxaw wax ak ñoom seet lan la saytoo loolu. mais mais mais le ministre Alioune Ndoye gis nañ ko depuis quelque temps ba mu jëlee c'est vrai récemment la jël sëriñ mais gis nañ ko muy amal ay concertations un peu partout. donc di rencontrer les différents acteurs yi nga xamante ñoo nekk autour disons euh, de ça est-ce que yéen euh, par exemple yéen euh, jot na seq waxtaan ak yéen wala peut-être le ministère des finances je sais plus ndax jot nañ seq waxtaan ak yéen. ci biir moom rek ñun ñun activité transport seq ak moom ci loolu. seqal gu moom waxtaan ci loolu. mais est-ce que tey gaawtu leen jël décision radicale gu ni mel euh, pour euh, maanaam euh, ñu mën leen dégg par exemple. ndax. ndax yéen actuellement parce que man décision parce que dama jàpp ni peut-être précipité waroon njëkkee waxtaan. ah non non non ko parce que am na ay waxtaan yu fi jiitu ba ñu expliqué woon ni leen règlement 14 bi am na ay waxtaan yu bari def nañ ko ak ministère de des transports ba nga xam ni appliqué wuñ woon danu différé ba le premier janvier nag mu ni léegi dañ koy appliqué. ñu ànd ci bi nu demee premier deux trois quatre def sept jours mu gis ni blocage am na mu woonu parce que dafay évaluer xam ne lii mënul nekk bi nu wooyee la mu ca dindi mooy lan tolérance bi nu waxoon bi ñu doon wax quinze euh, euh, quinze pour cent bi ñu waxoon euh, quinze pour cent de tolérance bi defal na leen ko quinze pour cent bu eggee Afrique pesage vingt pour cent différé nañ yëf yi ba fin mars. lëf boo koy réglé da nga koy réglé d'une manière définitive du fi nekk naan di défere bu ñu demee fin mars di ñëwaat toogaat waxaat mhm. ñun nag biñ ko pratiqué vingt et un yi mu saf sàpp ci ñun amul benn transporteur tey même boo taxawoon ni leen dem leen mënunoo dem ndax ba nu commencer ba léegi le premier janvier bis bu ne lu nu liggéey dañuy perte xaalis bañ a liggéey nag moo nu gënal di liggéey di perte xaalis. am na beneen point boo xam ne liir naa ko ci seen euh, communiqué bi nga xam ne génn ngeen ko ñu non respect euh, du tarif ñu avec euh, le gouvernement xaw ma nag nan laa ko mën a traduire si wolof mais li ma jàpp mooy dafa am loo xam ne tënkoon ngeen ko ak kilifa yi te ci wàllu jëfin bi ñoom appliqué wuñ ko. loolu mooy dañu waxoon ñu def bourse de fret ñu encadré tarif. transport. xam nga tey même ñiy voyager boo duggoon ci oto yi ndaw yi jëm euh, Kaolack wala Touba danañ xam ni nit ñi lii dañuy fay lii dañuy fay lii dañuy mm-hmm. ñu ne ñëw leen ñu encadré ñu waxtaan ñu def tarif encadré boo xam ni. buñ ko defee non seulement dana am njariñ danañ xam ni oto bi lii dañ koy fay mu jëm Kaolack mu jëm Mali du soxla muy fab oto di koy yàpp ba di ci teg ay tonnes ex yu ëpp boo xam ne day yàq tali dana taxit bu événement amee kenn du mën a yeewu di yokk tarif yi ndax euh, occasion am na màggalu Tuuba am na walla leneen ak leneen donc ñun loolu c'est pour protéger askan wi ñoo ko proposé. Mm-hmm. loolu lan leen wax ni loolu dañ koy def ba pare euh, ak yeneen yi ñu jiital. soog a wax nu ñuy appliquer règlement da cee bokk. d'accord mm-hmm. waaw alors beneen point bu ma jàpp ne am na solo. tey conteneur yooyu du fi waaw bu ñu déggee marchandise rek lu ci yàqu mën na ci nekk. loo xamante ne dina am durée de vie bu xaw a tane mais mouvement d'humeur bi ngeen dogal ndax tey amul loo xamante ne ma nga ca poor ba nekk fa te ñi ko fa indi ñàkk dugg ci réew mi dina mm. leen occasionné ñoom it ñu am ay perte la la question bu am solo la ndax loolu day toucher sunu mouvement bi lan lay féete ci koom-koom bi ñaar la ñaar daf ci am commerçant bi nga xam ni dafa am marchandise indi ko ci ba fii ci Sénégal dafa am fukki fan pour génne ko ci port bi au delà day fay li ñuy wax magasinage ak sure surestarie muy xaalis bu bare bu muy fay ca commerçant boobu dafa jële marchandise Chine fu mu ne mi ngi yàkkamti marchandise am génn mu jaay ko fay ay fournisseur am mm. askan wi ci boppam xam ngeen ni importation moo ëpp ndax li ñuy bari li ñuy dunde it day ñëw ci importation ceeb yi ni wax dana ñëw ci euh, saaku yi mais am na it yoo xam ne ci conteneur yi lay jaar loolu dana indi ay faux frais bu dee commerçant bi nga xam ni nag dafa indi marchandise réfrigérée ba xam moo xam ne dafa ñëw ci conteneur frigo kooku dañ koy branché branchement boobu moom amul fukki fan moom day am ñaari bis 48 heures hmm. au delà dañ koy branché branchement boobu dana ca fay cinquante mille francs par jour ba ba koy génne donc effectivement am na contrainte bu baree bare bu ci nekk ci loolu lañ doon daw moo taxoon ñu doon wax dañuy waxtaan. Mhm. bi ci des xam nga di tey ji entreprise yu ci bare euh, industrie dañuy. liggéey ci flux tendu parce que jamono metti na ba nga xam ne kenn du indi marchandise di ko stocké parce que xaalis ngay stocké mhm. donc noonu ñuy ñëwee ci flux tendu dañuy calculer ba nga xam ni kon euh, seen gaal buy ñëw bee buy jeex rek bi ñëw mhm. ñooñu conteneur bu génnul dañuy am rupture de matière première bu ko defee effectivement aussi day impacté loolu moo ci koom-koom beneen bi ci des mooy ci port bi ndax poor bi tey bu marchandise bi tu ñun bu ñu demul jëli conteneur plein yi dégager espace gaal yi bu ñu ñëwee fii trois jours poor bi dafay fees bu feesee gaal gi bu ñëwee day nekk en rade mm. gaal gu nekk en rade quinze mille à vingt mille dollars la par jour lay coûter armateur bi bu nu ràññee ci biti ba mu xam ni fii ak ñetti fan du dugg day calculer loo xam ni est-ce que ndax mës nañ ko fi day couper escale bi dem yóbbu marchandise bi pour di ko gën a jege donc loolu mu nekk jafe-jafe ci poor boo xam ni dañ ko bëgg a def un port moderne. Mhm. voilà. ben oui cher. mooy li ma parce que moo ko tudd léegi léegi parce que gis nañu ko aussi euh, quelque part euh, di nga xamante ni moo di euh, kii essieu bi. man jot naa voyager. un mhm. dans le pays. Mhm. jot naa constater que effectivement bu ma stigmatiser am na yenn ci ay camions nga xam ne yàq nañu tali bi parce que aussi boo xoolee gars yi dañuy investir beaucoup d' pour defar tali mais par rapport lañ leen di sol. day ba yàq tali bi ngay gis sax tali bi mel ni lu pente. loolu sax loolu voilà loolu aussi c'est une réalité bi nga xam ne war nañ ci mën a tenir en compte effectivement pour que aussi yéen itam ngeen respecter li nga xamante ni moo di moo di tonnage bi. loolu lu nu ànd la. moo tax ma ca njëlbeen ngeen ma wax leen ni bu nu xoolee bu nu defoon PTA si xam ne oto bii li mu war a mën a yàpp lii la am na nañu responsabilité boo xam ne ñun tam xam na ni du ñu fab leneen di yàpp lu ëpp loolu surtout bu nu encadré tarif bi du la amal benn njariñ ci ci loolu ku ko ci def ëppal ñu daan la ñun ci suñu bopp sax ñoo leen jëkk a wax daan leen ko ndax noonu ñuy bëggee di protéger tali bi bu nu protéger tali bi kan mooy ku kiy jëkk a gagné ci protection euh, euh, protection tali ñun transporteur yi la boo amee tali yu baax ah tali yu jub tali yu am sécurité mais kooku dana sax liggéey ci biir problème mu accident yi ngay dégg donc ñun ñooy les premiers à demander. mu mu demee noonu. waaw su ñu ñëwee ci seen euh, structure bi collectif bi. waaw ñaata entreprise la am. ñun ci suñu bopp suñu collective rek am nañu au moins sumat mat cent entreprise ca entreprise yooyu dafa ci am boo xoolee Sénégal bari na lu bare ci ngay dégg ay école transport logistique. xale yi xam ni génn nañu amuñu place seen i papa ki seen yaay dañuy jël ay risques di fab seen i kër yi seen këyiti kër di ko tayle di leen jox mu couvrir ci banque bi ñu leen di garanti ci oto yooyu ñuy ñuy jënd donc boo ci amee une centaine yoo xam ñuy tourner parce que ëppoon na loolu ah. Mm. matoon nañu plus de trois cents ci six sept années yu mujj yi lu mat cent entreprises ci ñun disparaître nañu. mën nañ ko parce tout simplement parce que métit mënuñu dem. charge yi moo tax mënul dem parce que tey jii transport bi dafa tarif bi om bi nu homologué mënaguñ ko sax appliqué tarif officiel kon xam nga ni jafe-jafe daf ci nekk dañuy dem ba nga xam ni du rek loolu ak li ñuy subir ci compagnie maritime yi ci multinationale yi ay détention parce que dañ lay wax ni conteneur bi ñoom bu loo ko di Dubaï joxee waxtu yu mu koy teg ci sa ci sa kaw camion. Hmm. daf leen koy yëgal ni leen teg naa conteneur bi tel jour ci kaw kamiyon tel nga génn dem livrer di conteneur bi ci 48 heures yooyu bu dellusiwul yow da nga leen di fay li ñuy wax ñoom ay détention muy xaalis aussi bu bare ay quinze mille 15000 25000 par par jour yooyu dafa étouffé. transporteur yi. xam nga xam nga circulation ak nii mu demee. da nga yóbbu conteneur ga ndegam bala ngaa génn port ba da nga ko teg sax bala ngaa génn consommer sept dix heures. ngay dang dang ci ba ngay mais mais loolu tamit est nga xamante ne moom ngeen di dund ne leen dem leen ngeen yóbbu en région xëy na kay war a weesu 48 heures. mais loolu ngi ciy xeex xam nga ni sax sax ñu ciy gën a xeex. Mhm. ñoom conteneur yi en réalité. location bi du leen coûter lu mu ëpp 2 dollars 2 dollars ak lani facture wu téewul la dafa def man dama am passage boo xam ni nekkoon naa armateur maa doon directeur général wu CMA CGM troisième armateur du monde donc dama xam ci maritime xam ci port xam ci transport mhm. donc tey jii effectivement bokk na ci suñu xeex bi di jëm parce que li étouffé transporteurs yi am na ci pàcc boo xam ni mooy frais yii ci port bi am na ci pàcc frais yoo xam ni ci ci armateur yi lay jóge alors bëgg naa ñëw si conséquence yi également euh, ci euh, xo ñi ngeen koy yóbbu c'est-à-dire jël ngeen produit. Mm-hmm. di yóbbu. di ko def di am ay loronge ci port ba. mais su fekkee ni yéen produit boobu jëloo leen ko. Mm-hmm. da nga am engagement par rapport ak fa nga war a yóbbu produit. Mm-hmm. comment ça se passe après seen diggante kooku. engagement yi. li ñuy def mooy xam nga engagement mooy nit ñëw nii la. Ah, boo grève moom xam nga ni di nga yokkaat encore. waaw non non xam nga xam nga euh, grève nu arrêt le travail bi ñu def. dana dana dana dana tax aussi bu de charge yi du duñu wàcc. dañuy fay salaire dañuy fay frais de structure tout ça donc euh, arrêt de travail kenn bëggu tax lii moom moom ci lañ leen di fayee ci la ñuy wut suñ suñ teraan mais loolu nga wax tax na aussi. ñi nga xam ne ñoonu duy confier seen seen i conteneur pour ñu génne ko li di li lien bi ñuy am mooy mu ñëw fay la pour nga def ko day ñëw di la fay nga ni ko ah fii ñu toll day danoo banque suñu loxo donc dama bëgg nga téye pay gi ba nga xam ni mën naa la euh, indil conteneur bi nga ñun tam bëggunoo tooñ ndax boo ko jëlee rek engagé na la ni yow war nga ko ndax bu amee kon temps bu mu def ci biir poor bi ca génnewu ko ndax lii mën na ñëw nii la ah yow mii yaa ma yóbboo loolu. Hmm. gannaaw arrêt de travail bi lan ngeen fas yéene def ndax bu fekkee euh, def ngeen ko tey euh, lan mooy étape bi si topp. du rek tey cest à tey tàmbali gi la danañ ko def tey def ko ci samedi bi mii kon am ngeen xaalis fas yéene ngeen toog autant de jour sans euh, dugal. waaw ci poor bi xaalis. waaw te yéen en contrepartie di ngeen ñàkk lu bëri. lu bëri la ñàkk mais soxna 1er janvier ba léegi ñi ngi ñàkk donc toog bañ ñàkk ci moo euh, defe naa toog bañ a liggéey moo tane bis bu ne nga ñàkk. Mm-hmm. Euh, sànq ci say kàddu de la même euh, kii nga jot a wax nu mu tuddati maanaam. surtaxe yi nga xam ne moom ngeen ko jàppee yéen euh, dégg naa la nga ni am na ay transporteurs yu bëri nga xam ne tey jii tëj nañu par rapport ak marché bi yéen seen clé de répartition nan ngeen koy defee wala client bi mooy xool ku ko neex rek dénk ko dénk ko sa sa mbir pour nga génne ko li nga xam moo di euh, conteneur par exemple transport conteneur dañ ko libéraliser xam nga ba ñu joxee ba nguur gi joxee terminaux yi multinationales yi maanaam Dupi Wët Dakar Terminal ay Bolloré TVS et cetera. ci la libéraliser euh, transport mm-hmm. donc tey jii condition yi ñuy wax ni boo ko amee mën nga dugg ci loolu nekk entreprise dugg ci loolu boo ko amee rek da nga ci dugg. très bien dinañ ñëwaat euh, ci moom mbay euh, Mbengue ñu dem seetaani publicité jàll.